abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne xibaar yu wér te ak ci bitim réew. mosuñu joxe benn délai ni projet wala travaux yi ci délai bi lañ koy def te réduire uma délai parce que pour man il faut ñu jàng di accélérer travaux di accélérer ay projets pour di réduire au mieux les délais et je sais qu'il est habitué à cela. ma ni ko soixante quinze jours lan nu jox avant le début du des parrainages je que quarante cinq jours avant le dépôt le début du dépôt des parrainages na nga pare liggéey bi et avec l'équipe les missions régionales on en avait en plus des coordonnateurs régionaux en plus des coordonnateurs communaux et départementaux ces missions régionales am na yu ci séjourné plus de quinze à vingt ci région yi pour travailler avec les sur place et je suis satisfait de voir que vous pu faire cent vingt sept mille quatre cent cinquante trois on demande que nombre bi ñu war déposé nekk ci sept régions au, au moins nga am ci 2000 mais là on a 14 sur 14 régions où on a plus de 2000 et je vous félicite et je félicite toute l'équipe qui a travaillé avec vous mënoon nañu continuer parce que délai bi des na mais maa ngi wax sénégalais yi ni bis naka la collecte pour le parrainage ñi nga xam ni seen fiche jotoon nañ ko remplir ci numéro 40 mënuñu dem parrainer keneen fiche yooyu na yegg si mais à partir d'aujourd'hui képp kuy militant responsable sympathisant du président Déthié Fall alors que jotoogoo woon parrainé demal nga parraineel beneen candidat bu opposition parce que je suis pour l'inclusion et je suis contre l'exclusion, quelle que soit sa forme. Et aujourd'hui, le président ci exclusion mi ngi utiliser deux mi ngi utiliser le règlement des conflits par la justice pour écarter certains candidats mi ngi utiliser l'achèchement des parrains pour que yenn candidats yi bañ a am parrain et je disais à Abdourahmane Sall que boo leen continuer di collecter da ngeen di nekk ci dynamique bi président nekk di asseché parrain yi alors que am ngeen li ngeen soxla boo leen amee li ngeen soxla da ngeen di xaajal place pour ñeneen ñi mën a collecter parce que inclusion loolu aussi da ci bokk donc ñun ci sunuy principe